ki fan ak juróom lu teg mënumaa teg bët sama doom te dem naa fa ne leen génneel leen ma sama doom ma waxtaan ak moom comme day def grève de la faim ndax man maa yaayam xëj na sax man mën naa seet ci man ba bàyyi waaye dañu ne ma mënoo koo gis ma yóbbul ko ay lekk ñu ne ma du dugg ba noonu laa wàññeekoo ak lekk yeeg samay jooy ah dafa nga ne mos loolu rafet na ci doomu jàmbur joo xamante ne yéen yéen ko gaañ ba pare tooñ ko ba pare yóbbu ko ci kaso bi tëj ko Pape Abdoulaye Touré activiste bokk membre bi nga xamante ne muy SMP ñu jotoon ko teg loxo le 2 juin bi ñu génn ñu daal di ko def mandat de dépôt yóbbu ko fële nga xamante ne muy pavillon spécial hôpital de Dantec boobu ba léegi ki nga xamante ne muy Pape Abdoulaye Touré mu daal di def grève de la fin fukki fan ak juróom ak lu teg. tey ñu seet si ki nga xamante ne muy waajuram bu jigéen fas yéene waxtaan ak moom si mbiru doomam bi yaay nuy nañ la. waaw kay maa ñu bàyyi la nga présenté wax sa tur ak sa sant. waaw man maay Roqaye Ndiaye di yaayu Pape Abdoulaye Touré. sa doom Pape Abdoulaye Touré yoon da koo teg loxo boobu ba léegi mu nekk fële sa pavillon spécial ba mujj nañ ko yóbbu sax li nga xam ne muy réanimation ginnaaw fukki fan ak juróom yoo xamante ne mi ngi def ab xiifal jëmale ko ci jëmmam ji ngir naqarlu niñ ko tegee loxo yaay ba nga yëgee loolu ban yëge nga am en tant que waajur bu jigéen. ah xanaa ànd ak tiit ak njàq rek jaaxle rek ndax ab Ablaye ture wax dëgg yàlla man day man maa ko jur waaye lii nga xamante ne moom lañ ko def de metti na ma ba ci kanam yàlla ndax moom tojul yàqul deful lu bon lu dul di xeexal ab réewam tout simplement ñu jef ko jëf ju ñaaw ji yóbbu ko en plus tëj ko ci kaso bi waaw yow mën ngaa def nit jëf ju ñaaw jii ba pare yóbbu ko tëj ko xanaa dëkk bi amatul yoon wala dëkk bi du dëkku jullit ah te lii kuñ ko defoon ñi ko jàpp nii def ko lii bu doon seen doom du leen neex ah ñu jàpp ko def ko man bi ma ko déggee wóor na yàlla damaa xam ndax xamuma lii mooy lan ndax man xam naa ne moom buñ ko man damaa foogoon na sax dañ ko rey wóor na yàlla moo tax damaa xam ndax lii man damaa xamul mooy lan ndax Pape Abdoulaye ture kër gi sax violent wu fi bay violent ci mbedd mi Pape Abdoulaye Touré du toj du taal du yàq du def dara loo xamante ne man nañ koo duut baaraam moom rus naa def loo xamante ne bu ko nit gisee day sëgg ah ñu jàpp ko def ko def lin du ñaaw ji ba pare yóbbu ko tëj ko ci kaso bi ah man dama ko daan seeti bu njëkk dama fa daan dem di ko seet mais léegi mënatuma ko teg bët. kan da ko doon dem seeti mooy jamono yi nga xam ne dundoon na torture bi ba ñu jël ko yóbbu ko pavillon spécial daan nga ko gis ba ñuy tabax loxo beeg tànk bi. waaw jooju daan naa ko gis maag bàjjanam ñoo fa daan ànd. jamono jooju moom daan naa ko gis boobu la ñu damm loxo bi damm tànk bi toj bopp bi léegi nag man bi ma fa dem man dama waaru sax bi ma ko gisee dama dama ne lii est ce que doomu aadama Ndiaye dina tiim moroomu doomu aadamaam di ko def lii ah dama waaru ah léegi nag jamono jooju ñun daan nañ ko gis di ko nemmeeku sax sama xel xawal xaw a dal mais léegi dama koo mënatula teg bët mënatuma koo jot téléphone mënatu xamuma ci moom dara te lu nekk laa ciy dégg dafa dafa dafa day def grève de la faim waaye lekkul naanul mi ngi jeex tàkk Pape Abdoulaye Touré dafa feebar. ñaata fan nga ko gëj a teg ba bët ki nga xam ne muy Pape Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré depuis mu commencé grève de la faim bi ba léegi teguma ko bët. kon bu ma déggee sa biir kàddu fukki fan ak juróom lu teg mënoo teg bët sa doom. fukki fan ak juróom ak lu teg mënumaa teg bët sama doom te dem naa fa ne leen génneel leen ma sama doom ma waxtaan ak moom comme day def grève de la ndax man maa yaayam xëj na sax man mën naa seeti man ba bàyyi waaye dañu mënoo koo gis. ma yóbbul ko ay lekk ñu ne ma du dugg ba noonu laa wàññeekoo ak lekk yeeg samay jooy ah dafa nga ne mos loolu rafet na ci doomu jàmbur joo xamante ne yéen yéen a ko gaañ ba pare tooñ ko ba pare yóbbu ko ci kaso bi tëj ko. yaay boy, ñi ngi jégalu ci cadeau gi di jégalu mbokk internet yu ñuy suivre suñu plateforme yi di wax ne ñi ngi toog ak ba léegi ki nga xam ne muy yaay Pa Abdoulaye Touré yaay kii di Pa Abdoulaye Touré ba mu defee grève de la faim dañoo jot si ay xibaar dañ ko yóbbu fi nga xam ne muy hôpital principal def ko réanimation même ba nga demee hôpital principal tamit ndax jot nga fa am accès. hôpital principal yan démarche nga jot ba mënoo woon jot ki nga xam ne muy euh, Pa Abdoulaye Touré nga gis ko. dañ na ma nekkul fii nekkul fii lañ ma wax ma retourné le Dantec ñun ñu ngi fii waaye dafa sonn mënoo koo gis daal man daal mënuma kaa gis lañ ma wax mënuma kaa gis noonu laa wàññee ko ndax ba tey gisuma ko fu ma toll maa ngi xalaat ndax sama doom ji deewul man gannaaw ki nga xamante ne muy Pape Abdoulaye Touré bañ ko tëjee loxo boobu ba léegi ndax am nga ñoo ci jot a jokkal ñoo xam ne dina yëngu ci mbirum yoon. a ah, man day wax dëgg yàlla maître Ndiaye daal laa xam ne mas naa bi ma bi ma bi ma déggee ne rek dañ ko jàpp rek bi ma demee maître Ndiaye laa fa fekk mu taxaw moom daal moo doon defal ne ma ñun dinañ ci taxaw dinañ ndax ñun ñooy ay avocat dinañ ci taxaw demal nga toog mama parce que ñun lu ci war. lu ci yoon wax rek ñun dinañ ko ci def boobu ba léegi nag maa ngi leen di déglu waaye dégguma ci kenn mu def ci benn réaction waaw man tam ma daal di toog di seeti sama doom di ñëw finalement mënatuma ko gis <clears throat> waaw waaye nag man man lii man daf maa jaaxal man man dëkk bii daf maa jaaxal mën naa laa waatal ne gis nga sama carte électeur Macky Sall laa ko njëkk a sànnil billahi wal kitaabi wante wante gis nga Macky Sall bi muy falu bobu dafa fekk pap Abdoulaye Touré di def sem 2 gis nga bimu dege ne Macky Sall mo gagné dafa genn ay couberu palaatam di tatchu ci mbedd yi di dem sasma. way suñ am nañ changement am nañ changement am nañ changement nak mom buñu démé ba heure bi ah mom bokatul ak mom xalaat wala mom muy wax ay xalaatam yi mu gis ci réew mi wala li nga xamantene jaadul mu diko ko ci réew warta tax ñu def ko jëf yu ñaaw ji ah warta tax ñu def ko jëf ju ñaaw ñaaw ji ndax moom patriote la parce que moom luy dëgg fii ci kër gi ko tàmbalee gis nga lu dul dëgg bu taxawee fii carrément day naan lii du dëgg lii mooy dëgg moom noonu la ko yàlla binde waaw ñi fi nekk mën naa ne ñi ma jur ñëpp moo ci gën a dëggu parce que moom li muy wax ci xolam la koy tibbee te noonu la koy noonu la koy réaliser noonu la koy defee li mu la wax du teggeeku noonu la koy defe loolu moo tax man ma tiit ci grève de de la faim bi parce que moom bu xasee ba ne lii laay def loolu lay def jusqu'au bout loolu lay def waaw léegi nag man loolu man moom a jaaxal dëkk boo xamante ne yow doo wax dëkk doo wax moom daal na nga wax lu leen neex ñoom nguur gi mais soo waxee loo xamante ne peuple bi la arrangé wala muy lu tegul lu dëgg loo xamante ne ku ko dégg xam ne lii dëgg la tey nga dee man loolu moom a jaaxal xanaa kay man damaa yaakaar ne bu fekkee ne sax yow da nga ñuy jiite bu ñu defee naka su dul noonu sax wala ñu wax li nga xamante ku wax ku wax euh, kii yam ci euh, xalaatam ci réew mi da ko war a déglu da ko war a déglu analyser ko bu baax ba xam ndax lii am na wala amul nga yebal say ndaw ñu xool ba xam mais man Pape Abdoulaye Touré man mii yaayam bu fekkoon na tey jii day taxaw di wax loo xamante ne jaaduwul man mii yaayam maa koy njëkk na hee arrête kon yow ba nga toogee toog dégg ñu ne Pape Abdoulaye Touré am na lu mu doon def si ki nga xam ne muy ministre de la jeunesse ñu koy wax Pape Malick jamono yi ñu ko invité si benn télévision mu doon dem ñu gis Pape Abdoulaye Touré génn na di dem ñu attaqué ko ndax dafa dam lu mu doon préparé si ministre bi nga xam ne ministre de la jeunesse ba nga déggee loolu en tant que sa doom ak ni nga ko xamee ban yëgeeg nga si am. man kay bi ma ko déggee sax damaa waar ci ki ko doon wax fii la la koy wax. ci télé bi am benn journaliste bu koy laaj mu koy wax mais dama ko toog xool analyse ba ci yàgg ma ne kii man est-ce que li muy wax sax analyser na ko Pape Abdoulaye Touré du rey weñ laa la wax Pape Abdoulaye Touré pot moo gën a tuuti du ko taal Pape Abdoulaye Touré du def lenn loo xamante ne laa la wax dañ ko ciy duut baaraam rus na ko da koo jomb da koo rus da koo jomb man bu ma déggee ñu ne Pape Abdoulaye Touré moo bëgg a taal ban kër ministre yow benn nit yow yoroo almet yoroo paak yoroo puso yoroo lañset nooy mën a demee kër ministre di ko taal ah loolu xanaa mooy waxu kasaw kasaw mooy wax ku amul looy wax ngay créer ay wax ah Pape lay Touré musul taal dara Pape Ablaye Touré nañu génne seen vidéo yi nga xamante ne Pape lay Touré mas na cee taxaw yëpp di wax Pape lay Touré du saaga ndax yarewuma ko ko Pape lay Touré du tooñ parce que yarewuma ko du yàqkat parce que yarewuma ko Pape Ablaye Touré kër gii la njëkk defar kuy defar seen kër boo fekkee lu yàqu nga defar ko fi doo dem ci këru jàmbur di ko taal loolu ku ko mën a wax xam nga ne dangaa wax lu la neex waaye waxoo lu am. Pape Abdoulaye Touré du taal kër kenn te loolu duñ ko gis te duñ ko gis ba keroog ñuy dee kenn du ko gis xanaa ay wax doo nga fi nekk mais loolu kenn du ko mas a gis ci àddina nit booy wax da ngay wax te yàlla tax ay jullit lañ ñun ñëpp kuy wax da ngay wax te yàlla tax ndax képp koo xamante ne fii yaa ngi wax bu yomal xiyaamee di nga taxaw ci suñu kanu borom di nga ko waxaat dégg nga kon nag magum jëmm bu taxawee di wax day nay wax lu ko wóor tey wax li am loolu mooy dëgg. yaay maa ngi dégg sa biir kàddu sànq yaa ngi wax kii di Pape Abdoulaye Touré. grève de la faim bi muy def rek fukki fan ak juróom ak lu teg ba léegi mu koy def moo la xaw a jaaxal ndax amul benn feebar bu nekk si moom boo xamante ne loolu ngay ragal mu indil ko problème. si lañ koy wax xawma am na benn feebar boo xamante ne moo nekk ci bakkan yi xawma loolu depuis mu nekkee xale ba léegi mi ngi ak moom. sinusite la wala. Euh, defe naa ko de yaakaar naa loolu la waaye Pape Abdoulaye Touré ci boppam sax moo ñemewul xiif moom bay grève de la faim man looloo ma gën a tiital ci ay mbiram. looloo ma gën a man bi ma déggee dafa def grève de la faim rek damaa daw dem foofu ne leen génneel leen ma ko moo wax ak moom. parce que man xam naa ne man mënul grève de la faim waaw ndax daf moom kattanam moo ko ko mayul sax ndax dafa amee feebar intérieur. kon nag Pape Ablaye Touré waruñu ko woon a bàyyi sax muy def grève de man mii yaayam bi ma bi ma demee bi ma leen ñaanee buñ ma mayoon kon dinaa waxtaan ak sama doom ba mu bàyyi mais dañ ne ma carrément doo dugg ma indil ko lekk ñu ne ma lekk bi du dugg. mooy ba mu defee grève de la faim. mooy mu defee grève de la faim. damaa dem na leen génneel leen ma ko man mi yaayam bu ma waxee moom dina bàyyi ndax dinaa wax ak moom loo xamante ne dina bàyyi ñu ne ma doo ko mën a gis ma ne leen kon am dugalal leen ma lii boog ñu ne ma dara dugg téléphone sax du ko woote ba noonu laa wàññee ko ak samay rongoñ di ñibbisi ci kër gi ah defe nga ne moom loolu rafet na loolu rafetul Sénégal ñun ñëpp ko bokk ah. ki fi nekk nii daf fee fekkoon ay nit ñu yeeg moom tam day wàcc xajal ñeneen nañu rafetal lépp ndax Sénégal gi ñun ñëpp a ko bokk Pape Ablaye Touré luy yàq Sénégal du ko def luy yàq Sénégal gi du mës jóge ci moom mukk ci àddina ndax xamu ko ñun duñu ay famille violente waaw fii nga ñu fekk nii fii lañ nekk xëj na nag moom yàlla moo ko bindee noonu mu muy def noonu loolu mooy objectif am mu koy def ñun ñii xamuñu luy ay affaire politique ak yooyu xanaa wote jot ma dem sànni sama carte ñu bisi toog waaw waaye nag moom comme loolu la ko yàlla séddee ah ñu ko ci yàlla rek waaye nag moom torture yi moom wax dëgg yàlla metti na ba fu metti ci te lii nag dafa ëpp torop dafa ëpp torop xam nga ne man moos damaa mënta dem rek wañ seen loxo waaw ndax man ëpp ma leen doole waaye bu ma ko mënoon dinaa ko def parce que loo mbub moo sol te jotul la rek bu ko solal sama rom ñoom lii ñu def pap Abdoulaye Touré tey jii ku ko defoon seeni doom du leen du du leen neex waaw. yaay booy maa ngi dégg sa biir kàddu nga ne mënoo wañ seeni loxo xibaar yi nga xam ne mujj nañ ko jot yëg nañ ne kii di Pape Abdoulaye Touré dina fas yéene jàkkaarloog juge bi nga xamante ne moo ko defoon mandat de dépôt ngir déglu ko si mbir gi koy toppee ban message ngay lancé justice Sénégal particulièrement juge bu mu fas yéene jàkkaarloo. xanaa justice Sénégal rek mu indépendant tëdd njaaxaanaay tey àtt ak dëgg ak yoon Pape Abdoulaye Touré bu jàkkaarlook moom bu waxee moom dina ko dina xam ne li mu ko wax mooy dëgg. parce que Pape Abdoulaye Touré du tooñ loolu ñu koy jiiñ ñooñu affaire toj yàq yooyu Pape Abdoulaye Touré doxul ci yooyu du toj du yàq du taal. xëj na nag ay message dina ko def di ko bind ak di taxaw ci télé di wax mais mbirum toj ak taal ak yàq moom nañ ko génne ci loolu parce que doxul ci yooyu du ko du ko mës a def justice bi nag maa ngi ñaan ci yàlla di ko ñaan moom moomu dossier Pape Abdoulaye Touré bii na ko traité de normal parce que Pape Abdoulaye Touré tojul yàqul taalul bokkul ci ay complot bêtise yëfi yooyu loolu du yëfu nit sax pap Abdoulaye Touré du bokk ci yooyu yoo xamante ne boo ko defee cim réew ëllëg mën naa doon saw xas Pape Abdoulaye Touré du ko def du def loolu loolu dafa war a leer ci bopp sénégalais yëpp parce que pap Abdoulaye Touré c'est la première fois muy def ay manifestation wala muy taxaw ci ay télé di wax wala muy bind ay média ah ñoom loolu la ñu war a comprendre du ñu ñëw rek mere ko ci benn affaire rek commencé ko indil ay problème ba yakal ko ni àddunaam ni lolou dafa ñaaw Abdoulaye Touré xamé won nañ ko li jëm ci mbirum jang bobu ba légui mu nekkon feulé sa université Cheikh Anta Diop mu jibi ñu dakk ko fa génné ko fa mu wëlbatiku ba bañ koy mujj japp sax amna examen bu mu waron def mom ki nga xamné muy Abdoulaye Touré lolou bang ko yégué ban la nga yëg sa xol en tant que wajur bu jigéen. xana yëg naqar ak coono ndax duma fayal sama doom muy jàng may kurti kurti dawal di dawal sama bop di dawal lima fayal sama doom muy jàng ba toll foofu ba dugg université ma am ci moom yaakaar lool Macky Sall xëy suba teel dàq ko mu doon lu ma metti torop waaye ma muñ loo ko sunu borom bi subhanahu wa taala xam na lu am rek yàlla la te yàlla du bàyyi jaamam mukk ndegem rek man maa ko jur ci faratas yàlla ak sunna Muhammad yàlla du ko bàyyi ndax man mii ndeyam tàngalu sama xol benn yoon ndax Pape Abdoulaye Touré da daan wàcc école université ah. ñëw na ma yaay yor nga xaalis ma ne ko yoruma dara Pape Abdoulaye Touré maçon na Pape Abdoulaye Touré yennu na def na lu nekk ngir bu ñëw rek pour bégal ma bëggul ma am benn jafe-jafe àddina bëggul ma am benn problème moo àdduna ah. boo ko fekkee ci kër gi mook rakkam yi comédien lañ koy woowe ndax moom xamul yooyu moom fu mu nekk dafay bëgg ñëpp di ree dafay bëgg ñëpp di reetaan loolu mooy jikkoom mais man bu ñu ñëwee ne ma Pape Abdoulaye Touré dafay def affaire violente man daf may jaaxal ndax loolu du jikkoom ah dak bi mom metti na ma torop waye comme yalla dogal na ma ngay égalé fële am jangam yit sante yalla waaw man dama ne ko won sax pap Abdoulaye Touré tey nga génn réew mi bala ñu la ray waaw yeggoon nga ba proposé ko loolu pour mu gëna a génn réew mi pour mu mëna am jamm waaw pour mu mëna am jamm man de loolu la waxon mu ne ma yaay man dëkk bi fi la juddoo fi la yero fi la magge xawma fen fi la xam damay jang bu ma sama jang ba para fi ci fi ci réew mi la bëgg tok toog ko man sama sa bakkan bii bañ ñu jël ko. ndax ni ngay tànte di la rey bët bu set bés bu ñu réussir keroog ma ñàkk la mun na ma bàyyi rek yàlla baax na yàlla mooy ree waaw waaye loolu firndeel na ko keroog ndax bi ko nervi yi jàppee dañ koo naroon a rey xanaa yàllaa bañ bu yàlla bañul woon kon ba tey dañuy naan fee lañu ñu faro néewu ab Abdoulaye Touré bi waaye yàlla moo bañ waaw moo tax ma sa delluwaat sant sunu borom bi subhaanahu wa taala bu wér a wér a wér a te fu ma jullee ma di ko ñaanal incha rabbi fale nga doon dem supervision spéciale di seeti ki nga xam ne muy sa doom Pa Abdoulaye Touré daan nga fa fekk ay moromam ak ñoo xamante ne ay kilifa lañ sax si moom ñu nekk fa ñu téye leen fa. ban message ngay lancé ki nga xam ne muy njiitum réew mi ña fa nekk lool ñii seen yaram xaw a tàgg témbe ñu nekk fa téye leen. wallaay bu ma fa demee sax sama yaram dafay daw. fa laa fekkoon Cheikh Bara Ndiaye laa ci xàmmee am na ci ay ñoo ñu bëri ñoo xamante ne bu ma demee dama leen fay fekk mais damay naan kilifa yi magum jëm yi. ndeysaan lan moo leen war a indi fii ba ba lii ba ba lii di leen dal ndeysaan seen njaboot yi ñëw di leen seet may ñaan njiitu réew ma Macky sal ngir yàlla li laay war a sóori na bàyyi détenu yi mu jàpp ni am na ñoo xamante ne ñu ngi ci kaso bi sonn bay bëgg a dee man du may dem tribunal di avant ñu koy eh, def mandat de dépôt mais damay gis ay xale yu ndaw di wàcc ci oto yi ay maire ay màgget mu leer ma ñii mënuñu manifestation xale yi mënuñu manifestation jigéen ñi àddina du yàgg ba ñu bokk ci ay manifestation ah ak ñoo xamante ot dañuy yendoo wàcce ba ngoon jot man damay naan lii est-ce que xaj na kasob rëbës ah man daal man loolu man jaaxal na ma torop te bu ma sañoon daal ñu bàyyi détenu politique yeeg ñeneen ñi nga xamante ne dañ leen a jàpp te jàpp leen jàppin boo xamante ne seeni mbir garaawul parce que am na ci ñoo xamante ne dañ leen jàpp ay criminel ñi ñu jàppe leen ay jël alolu jambur ak yoy ñoon sa wahne, nañu wax ne nayar. na nanyo nañ tene. yar mais am nañu xamantene ay affaire politique ak ay affaire message ak ay affaire yi lolu jaru tej nit ndax kasso dafa metti ba la nga ci dugal nit da ngay xam bu baax da ngay am ay preuve yu leer doog a jël nit ki diko duggal ci kasso mais do jël jël nit rek ñëw dugal ko non rek ci kasso bi bayiko fofu foofu sax ndax kasso dafa metti